gis dafa am. man bu ma état wu Sénégal woowoon man sag weer ma wax leen kii faatu. Ah. waaw man naa ko. dayit léeg-léeg ñu ne candidature man xam nga tey jii bu ma toogoon fii gis Amadou Sall. mu war a jiite réew mi. yow xam ngeen man damaa libre. Mm-hmm. damay ñëw na la gis naa Amadou Sall. Mm-hmm. bu ma gisee président Ousmane Sonko damay ñëw ni leen man kii ma gis président Ousmane Sonko moo nekk ci palais bi. Mhm. waaye dama leen bëgg wax ne sénégalais yi li ñu foog ci élection yi ak liy am dara bokk ci. mais mais mais li meloo laaj léegi bala dugg ci élection yi. li mu wax ni ceeb gi. maanaam seet soo a ñëw. wala comme ça ni ngay xoolee nit ki nii ngay gis li ngay wax wala. loolu jiitu na li déggoo li ma la bu may ñëw bu dul baax sax dañ naan ma du baax. d'accord keroog bi may ñëw fii dañ ne ma du baax. waaw damay xool Ali ma xool nangam dugal samay yëf. ñaare dama lay fanaanoo doog a ñëw ñun yow. dama laa fanaanoo doog xool ah? soxna Fall kontaan. ah mais looloo yëf. dama lay balaa ma bërëb yu bari looloo tax duma fa dem. Hmm. waaw waaw léeg ma fanaanoo mbir mbir ma dëgër. léeg ma fanaanoo yëf xool na nangam. léeg-léeg nga fanaanoo mbir naa ah, waaw waaw. tey moom da ngay jóg dem. d'accord léeg-léeg nit invité la. Hmm. man nit invité na ma ma xam ne woy juram day tàggoo ñu wax ma ko te yaay ji daf maa bëgg dama la bëgg a wax rek ci ak gisakuk liy xew ñu jeexal émission ma ne ko ah man de daa am lu ma kii mu ne ma woy jur wala daa nàngam ma ne ko nañ dem ma gis ko fii ci Sénégal kan la woon non bëgguma <laughs> dafay leb man du problème alima alima alima alima alima man danga ma yow jaaxal nga ma waaye danaa ñëw ci yow ndax am na lu ma gis ci yow loo xam ne mënta ñàkk ah, danaa ko partager ak sénégalais ndax yow sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi billaahi wallaahi maa la ñaan ci barke Serigne Saliou barkeb Serigne Saliou billaahi wallaahi xoolal barkeb Serigne Saliou maa la ñaan barke Serigne Saliou barkeb Serigne Saliou dara ci ma alima non daam luy xew te dama ko bëgg a bokk ak sénégalais yi ci moom te bu ma ñëwee fii tam te waxuma ko ci moom sëñ bi meloo day metti ci sëñ bi sëñ bi mais man attends moom lu mu wax mën na la indil lu koy du ma ko indi lii damaa gisul lu ko mën a fànq sëñ bi lillahi wa rasuli laay ah. wallaay maa la ñaan lii bul wax de ah. bul wax sëñ bi dama mënta fànq nag sëñ bi sëñ bi sama yaay gi seetaan boo waxee léegi mën naa gaañ <laughs> xam naa ko seexanta sëñ bi mais mais nee nga